seeti fekk Moussa bi mu amee rendez-vous bi ñeent fukki fan yi mu ne leen jaamu leen ko ñu ko kon daal mën nañu wax daal disons que miracle daal mm-hmm. euh, gisoon nañ ne c'était pas pédagogique maanaam daal jëf jik alxuraan mm-hmm. sax surtout mm-hmm. dañu bëgg a exploiter foofu yonent bi salaam ko foye sa ay doj rek la ay montagne kenn mënu fi bay dafa xat yow boo mënee te li ngay woote dëgg la mhm. maasaleel doj yi mm. wala nga indi dex yi mm. defal nangam defal nangam mm. bu ko defoon mu def ko ba noppi duñu ñu gëm ñu jëlee ñu fi nag exploité ko mu xamal leen ne leen bu leen jaawale man yonent laa mm-hmm. dañ may yónni mm-hmm. li ma sant rek laa fiy def mm-hmm. nekkuma ba ëpp nit ko euh, koo xam ne dafa amee kattanu boppam koo xam ne da ngeen koy sant muy def bu deen xamal moo tax mu deen delloo si wala leen leen doomu aadama la bu leen seenu ne damay koo xam ne dafa ñëw di walbati adduna bi di taal géej gi di taal asamaan si di walbati suuf si lu nit bëgg ma defal déet bu leen jaawale nit la waaw mm-hmm. pour wan leen nit yaa moo di pour ñu gën prophétie ndax mm-hmm. prophétie mm-hmm. pour sax wax lu tax malaayka suñu borom yónni ko mu ngi ci nit ki ñu mën a roy ci li muy def lépp mu mel ne yow moo mën a ki léegi noonu ndax xam nga ne bu fekkente ne malaayka ñëw na malaayka mi duñ ko mën a ci lenn du lekk pour daganal yi lekk ko yi araam du naan pour wan la da ngay naane teggi teggi ni lekk du sëy pour wan la xaq yi nga ameel sa waa ak àq yi nga ameel ak na nga leen war a du ci am pour nag mu mat mu nit koo xam ne day jëf ñu di ko roy lu mu def effort bi muy def nga xam ne yow itam boo defee effort bi mu def da nga ko mën ndax yàlla laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa du teg nit ki lu mu mënul bu indi woon malaayika malaayika mi li muy def duñ ko ci man a roy te kon nu am laay ci suñu borom ci kaw suñu borom pour nag mu dagg laay yëpp ba nga xam ne kenn du mën leen mënu noo roy bu indi nit koo xam ne day xiif ni ngay xiife di mar ni ngay mare mhm. di sonn ni ngay sonn mhm. dégg di feebar ni ngay feebare mhm. di wuti di ñàkk comme yow dégg nga di li def rek mu di leneen li nga xam ne ca biir la leneen la euh, alxuraan dëgg la dafa am ay wax yu mu wax ak tegal yu ñu ñu topp ci waaye léeg-léeg nit ne mën jël benn page dem bokk naan faj lii mbaa faj laa yow loolu na ko gisee waaw su ma ne noonu am na tuuti benn dimension bu ma ciy def. Mhm. lu ma déggoon ci rajo bi. Mhm. benn nit wax ko mu comparé alquran ak code de la route. wane ne alquran dafa ñëw ngir digle doom digal doomu aadama bi li koy jëriñ. Mhm. tere ko li koy lor. bu defee li mu ko wax dana jëriñu. comme ni nga xamee ne code de la route bi lim lay sant lim lay tere boo ko respecté. doo def accident incha allah. lu dul rek. lu néew daal. moom mu ne loolu mooy alxuraan téere bi loolu. mu ne comme alxuraan it loolu rek la boo ko jëmbee naan mm, te yi mu tere yi mu digle loo ko du jëriñ dara. Hmm. maanaam même boo defoon yi mu digle bàyyi yi mu tere boo ko jëmbee naan du jëriñ dara. Hmm. wax ju la. Hmm. parce que kot ay nit a ko def doomu aadama ñoo ko xalaat rek def ko. alxuraan wax yàlla wax yàlla waxoon naa sànq ne alxuraan lu diis la. lu foor lu am barke la ci ki ko gëm. lu am barke la ci ko gëm barke boobu la barke lo fatiha safara ci jep jangoro am na lu mu tekki am na nu ñu ko mën tekantale waye waaye xam lañ ne ne lu jiif lo ñaan ñaan yalla la ñaan mhm. ba ñaan am na ay yoy tari mhm. ak salatu ala nabi mhm. boo ñaanee mucc lepp lo xamni nit ki daf ko bëgg a wax ci làmmiñam mokkali ko mu bind ko bind moo remplacé wax fatihatul kitaab ci ci xadis yu wér ay saxaabi yu doon voyagé fekk nañu ci benn xam nga ñu ko wax benn amoo daal benn concession ay ku am ku feebar ñoo ñaanal ko ci fatiha mu wér ñu jox leen benn gàtt bi jox leen ba ci sa wàll ana du leen xamal ne fatiha saafara la أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بك الله الكريم بوب بمو ñewé dañ ñewon ko ko ñi ko mëna jang nañ leen ko bindal dañ ne bu alquran wéyé deuxième lieu li ci top immédiatement ci authenticité moy sahih bukhari bi ci tag moy sahih muslim dudul alquran ñaan ñoo la gëna wër ñaan ñoo nak ben hadith bo xamni ñoo ñepp dajé nañ ca kon dudul alquran mo la gëna wër julit ki mënu ñoo am bu alquran passé lu wëré nonu wala du ko gëna wër te boo seetee zaadul muslim fi ma tafaqa alayhi buxaari wa muslim ñoom ñaar ñëpp da ñoom ñëpp daje nañ ci ne nit kii li muy takk wala mu di ko naan wala mu di ko diwoo liñ ci charte bu mu doon wax ju mu xamul ndax bu dee làkk mu xamul mën na fekk ne ay kuy jinne la ñuy jay di leen teg place yàlla ak di wax loo xam ne jaamu la la te loolu bokkaale la arab na waaye bu fekkee ne li nga wax xam nañ ko. Mhm. wala muy turu yàlla wala muy alquran. Mhm. Mhm. amul sikki sàkk ci ne lu am njëriñ la ci ki ko gëm. day kon kon nga ci takk ànd nga ci. waaw ànd nga ci diwoo. waaw ànd nga ànd nga ci yi imam dangay si nga jàng. daajal adduna kenn mënu ko waaye lu ne koy seet. boo fa bee muxtasab Cheikh Khalil. ci téere yu yi la. ci gëru imam Malik. da nga si ne booy dugg ci. Euh, douze. waaw maanaam daal cabinet yeeg yooyu. waaw nangam waaw boo amee téere boo xam ne. dañ koo ñaw maanaam ëwuñu ko der. Mm-hmm. dugaluñ ko ci black. Mm-hmm. black boo xam ne day boîte boo xam ne daf koy fermer. da nga ko dindi da ko dindi. Ah. boo takkee sax jaawar bu am tur yàlla na ko dindi. ko dindi ah. loolu di wane ne temps yooyu kon lu amoon na. amul sikk. bu mm-hmm. fekkoon la du wax loolu. balay tere nga dugal ko ci def naan araam na nga dugal set ko. nga kii ko dafa bari yu nga xam ne ci jamono bii lañ koy dégg mm-hmm. nit ñi sulli ko mm-hmm. waaye dañuy dellu ci cosaan yi rek ndax beneen yonent wàccaatul mm-hmm. di daganal lu tere terewal wala muy terewal lu mu daganaloon kon nag mënuñu dellu ci alquran ak hadis kon nag waaw bari nañuy wax sax naan ñaan ci barke diw daraje yonent bi salaf wala loolu araam na ñu la ñu ko wax ñëpp ba ma daje ñoom mënuñu ma wax benn hadis bu ko tere wala benn aaya te man nee naa leen Sidina Omar te naa taw maran li wax ya, sécheresse mu dajal sahaba yi ñu ñaan mu ñaan ci barke sayyidina abbas ibn abdul mutalib yo xam baye baye taxla ci yonent manam bayam bu ndaw la sayyidina abbas onkalam la waaw dégg waaw mu ñaan ci mu dal di taw hmm. sahaba yi pli fo te sahaba yi wedd te sahaba yi duñu toléré ak ko meuna doon nga def lo xamne jaadul te daluñ ci sa kaw kon sahaba yi pu dak and nañ ci hmm. eh, lu sahaba yi pu and ab saxaab yu boo ku jam saxaaba rek alko ku jam saxaab yu benn alko te lu ci des nañu woon benn xadis wala benn aaya ñaan ci barke yonent wala ci barke diw arab ko sànq waaw mm-hmm. di yàlla danaa di faral di wax répété naa ko ay yoon mm-hmm. seulement toujours dañuy fàttali ko fàttaliwaat rek mm-hmm. zikr ak fikr waaw mën a àggale nit ci yàlla la zikru tur yàlla dañu ne moo mën seytaane luy bëreeg seytaane nag war na bare. war waaw. ndax nit ki bu fekkee ne njëkku la dindi jikkoom yu bon yi ci mm-hmm. mu mel ne néeg xol bi mu ngi mel yi mel ne yàpp wu ci nekk seytaane xaj la bu taxaw fee. Mm-hmm. day bëgg ñëw dugg ci néeg yàpp yi. Mm-hmm. yaa ngi tudd tur yàlla. day daw ñu ngi tur yàlla waaye fële lay taxaw. boo noppee rek mu dellu si dugg ci néeg waaye bu fekkente ne yow jikko yooyu yëpp dégg nga combattre nga ko. def nga jihaadu nafsi xeex ba dindi yooyu yëpp xaj bi amatul soxla ci néeg bi yàpp ne ko fi lu mu xiif xiif yàpp ne ko fi du fi dugg day dem. ربكما am yoon mhm. dafa am yoon waaye mooy àggale ki ba am fatax xam secret yi mhm. mën jëfandikoo dikru mooy tudd yàlla mhm. yàlla ci boppam dafa foor fooraange goo xam ne jéggi na daayoo dara mu ko dékku rëyaayam ak diisaayam gis nga xadis bi moom ne am na borom ngëm yoo xam ne seen ngëm dana foor foor koo xam ne bu ñu jéggi siraat safara wi day tiit naan ko gaawal sa leeru kanam gi mu ngi fay sama safara wi mm-hmm. yenn yu ci bari faral naa koy wax ci conférence yi seulement comme le même sujet se répète sujet yi ñoom lañ lay joxaat le même thème le même mm-hmm. fokk ma bii si waxaat lu tey itam comme fàttali la a fokk may wax lu ma di ko waxaat di ko waxaat loolu ngëm ku diis googu mm-hmm. te toll foo xam ne seytaane du la ñemee jege. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na Omar du dugg ci mbedd lu dul seytaane daway na ci mbedd moomu. est que gis naa Cheikh Abdoul Wahab Sha'rani mi wax ne. Mm-hmm. bu gisee seytaane. Mm-hmm. comme yàlla may na ko mën a gis seytaane. buy jàng alxuraan rek bu dalul di gaaw daw day tàkk day lakk. day lakk day lakk. waaw bu daw rek lakk seytaane. bu daw rek lakk seytaane bi bu daw rek lakk. alxuraan ji moo koy lakk. ndax alxuraan mu ngi ak ki koy jàng. fi ngënam toll. ولأن القرآن لم يشير بالجبال وقطع البلاد وكل به الموتى ما جي سنة يوم تبي سنة سنة آية دان واتي بني دي سيمو لم كو من ديكو مو عندك سكري مو كو وارال مي خالي بو توت دنج كوي جانغال في القرآن آية الكرسي ولا ياسين جي القرآن سورة الإخلاص ني دي سي مي مو موكال كو تدكو دكو يك أقول كون مي اديو تي نغم جي لغي كي كي ديف ذكر مانام كي سكر تريالا ñaari isne moo am isne mooy maanaam permission. al isne la am. ñu suñu borom diglee di leen fàttaliku yàlla. lu raw ñu ngeen di fàttaliku seeni waajur. wax na di leen ma fàttaliku ma di leen fàttaliku mm-hmm. di leen ma tudd ma di leen tudd mm-hmm. wala tagg gaa ñi nga xam ne mu ne allazina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim la boole foofu si zikru mm-hmm. ak fikru muy tagg ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla waxtu ñu jaaxaane waxtu ñu tëddee wet a nga bu ñu taxawee bu ñu toogee fu ñu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam bat nañu ko laaj lan mooy mooy jógee nit dëgg dëgg yàlla mu ne ko bu sa lamiñ dañ di tudde yàlla maanaam ba mu dañ di lu tooy maanaam ñu fray ci tudde yàlla mm-hmm. dégg nga fekk na ba mu gëjee tudde yàlla yàggul foo ko fekk rek ba mu gëjee tudde yàlla yàggul ndigal yooyu pour ñëpp la ku nekk mën ngaa fab nangami tur mm-hmm. sàkk sa dog ñaata yoon mm-hmm. da koy def par bis par semaine par weer di ko def dañuy wax ne tur bu ci nekk am na nombre buñ ko war a def wala loolu amul solo tamit. ah kay waaye mu ngi dépendre ca la ko tax a jóg. tax a jóg waaw. bu fekkente ne li ñu tuddee al isnul xaas nit ki nga xam ne sikkar na tudd ba jot sekere ba moom moo jox la ko. Mhm. kooku moom leneen la. sekere ba jot ba jot sek ba sekere jot sekere tur bi la sekere tur waaw. Mhm. Euh, toujours ma di ko misaal naan ki nga xam ne dafa ruuj toolam ba mu set. Mhm. nga ñëw ñaan ko tool. toolu kese suuf la lay jox. bu dee fu ñu roojagul xam ngeen xaw ma xam ngeen rooj wala déet xam nañu rooj balaa foofu la koy jox mais ki nga xam dafa bay ba bindee dugubam ba def ci saxam ba bojj ba togg ba am cere boo xam ne cere lay jox da ngay daan yekk rek cere lay jox waaw waaw mais mais mais zikr amul danger kan mën nga zikr la nekk wala am na danger ça dépend ça dépend waaw ndaxte ba ba surtout Ihya Ulumuddin imam Xasali dafa wax ne Xasali waaw man kullu man tajarada bi dikri faqad rakiba safinata alxatari imma an yahlika ma alhalikina aw yarju wa yakuna min buluki diin képp koo xam ne danga bàyyi lépp jublu ci sikkar dugg nga ci gaalu danger benn nga alku yaag way alku ni wala nga mucc bokk nag ci buuri diine yi boo muccee bokk ci buuri diine yi mm-hmm. ndax sikkar tur mu diisee bakkan mbaam la boo ko tegee lu mu àttanul ci gaaw te jaarale ko ca yoon wa mu wangeetu la daaneel sëf ba weq la nga gaañu boo dee sikkar itam julli yi xam ne yow mii ko da leen di not man nga leen a not ci secret bi nga amee bu ñu bëggee def dara nga yàq ko mën leen a def loolu nii ñoom it dañuy xeex dañ lay xeex yooyu yëpp am na ci moo tax ne bu fekkee ni ma ko waxoon bu njëkk rek al iznul am la kooku nit ki mën naa seet ndox bu ko neex rek bañ ko ëppal waaye mën na koy def bu baax la ilaha illallah wala salaatu ala nabi wala salaatu ala nabi mooy ba nga ne ñëpp nañ ci ne amul ngaañ amul danger te yim nangu yeneen tur yàlla ko mm-hmm. mën nga bañ a laab di ko def mm-hmm. yeneen ci des bu ko defee nit ki mën naa alak nit ki mm-hmm. salaatu ala nabi moom li moom Sanusi wax na ne moom rek la nit mën a jàpp ba àgg ci yàlla ndax daf koy jàpp ba xëcc ko ci ba am ak si bi sallallahu sax mu ngi dégg ñu koy ñu koy def salaatu a dégg ne comme ñu ne yàlla. mu ngi ci yonent bi. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yërmandeem la. Mhm. yàlla julleem ci yonent bi ak malaayka yi seen julli ci yonent bi du benn benn ba ci nekk dafa am lu tekki mhm. gis nga yonent bi salaam su ci leelatul mi araaj guddi mi araaj bu mu demee ba ba nga xam ne amatul benn mu def bu mën a weesu foofu sidna Jibril ne ko xii da am mu naj lu toll ko avancé lakk ci leer yi yow rek dem yow yàlla dëgëral jox kàttanu mën a dem alburax mën ngeen jëriñ mën dem salaam bu ñu dikkee ba ba mu daatal dugg ci xadra bi dafa yëg wéet wéet a wéet a ndax nit doomu aadama dem ba foofu suñu borom wan ko baat bu mel ne baatu Sina Abubakar pour yóotu bi nga xam ne Sina Abubakar moo gën a moo doon. xaritam du mel xaritam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne. Mhm. bu ma doon jàpp xarit kon Abubakar laay def xarit waaye sama mbokk la ci yàlla. daal ne la ak inna saahibakum xaribu rahmaan nee na moom xaritu yàlla rek la. Mhm, mhm. est-ce que waaye Abubakar mooy mu gënoon a mënante ki gën a moom gën a ay secret. bu dégg baatam bu ne ko xif yaa Muhammad inna rabbaka yusalli Muhammad taxawal sa borom day julli.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 Mm-hmm. te woppuloo deewuloo mm-hmm. laaj na yërmande yàlla dum fa la lu mu la lalal dana la lalalal yërmande fi ngay jaar mm-hmm. lalal yërmande sa diggante moom ba agsi ba lépp sotti ba ni mu waxanteeg ah. ko de seen ba tey beneen laaj a ngoog mm, gis na benn téere boo xam ne xalifa Ñas daf ci tëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana agsi metti waaw monsieur mu woon ci Kaolack magi si du Gréñes waaw ku makk ku makk waaw ah, ku makk boo xam ne alaaji Abdoulaye Niass de mooy ku makk mag mag mooy kay kay seen baay waaw waaye nag ki njëkk a nekk xalifaam bi mu fi jógee ah. xam nga ay téere yu bëri bu ñu mhm. bindee euh, benn euh, diwaan mhm. maanaam rek ay poème boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko tagg mhm. wa sallam gis na suñu borom tabaraka wa taala mu ne xam nga ulama yi dañ ci wuute dañu ne sayyidatina Aïcha nee na gisu ko ku ne Muhammad gis na yàlla fen nga fen yu rëy ci lislaam mm-hmm. Abdullah ibn Abbas ne gis na ko mm-hmm. mu ne ñu expliqué ko moom ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ne sayyidatuna Aïcha jigéen la mm-hmm. te bëgg na mu réer yàlla fa ko tegoon rek gën koo teg wan ko ne ko ne ko gisuma ko Abdullah ibn Abbas mi nga xam ne àtt na ko dana ko mën a interpréter mu ne ko gis naa ko égyptiens yi nag ci bu moom bu téere ba te it ma si amoon nit dina si ne daal ne lii daal rëcc rëcc maanaam njuumte lu rëy la ci Ahmad Tidiane ndax yonent bi na muy waxee lu mu gisul mu naan gis naa ko wala lu mu gis mu naan gis ma ko comme ni waxee Aïcha ni mu waxee moo mm-hmm. déggul moo amul dégg mm-hmm. moo déggul na sama ba demee Cheikh Ahmad Tidiane dégg na ko radiyallaahu anhu ndax dafa ne alquraan fu ne laa tudrikuhu l-absaar wa huwa yudriku l mm-hmm. du gis suñu borom mu gis bëti bëtu kii di matériel mënul gis suñu borom tabaraka taala bët di ko gis. Hmm. loolu la wax naa Aysa ko gisuñu ko. waaye xolam moo gis suñu borom tabaraka leeru xolam moo gën a leer bët moom la gisee suñu borom tabaraka taala. moom wax loolu la wax Abdullah ibn Abbas. ñu jàpp na gis ko ak bët. waaye gis na ak xolam ak xol te xam nga ne Moussa ci alxuraan bi ñu wax suñu borom rabbi arini anzur ilayka wan ma ma xool la. ko lan doo ko gis mukk maanaam sa bët jabali fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraa doj bi boo ko feeñoo bu doj bi ne dégg mel na meloon dara sikku ci nga xam ne mën nga ma gis bu suñu borom feeñoo tabaaraka wa taala ulama yi dañu wuti foofu ñu lu toll ne bën bën ko sa la lu toll ne bakkanu sëllu ñu ne lu ne wax nañ ko doj la mooy nepp toj toj pulvérisé bët yi li tax waaye yemal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee gis suñu borom ni mu gisee weer wi yemal xiyaam waaw yemal xiyaam bu lépp jeexee daal waaw bu lépp jeexee bu dund a gis suñu borom tabaraka wa taala beneen dund la dal di faral di nettali maanaam rapport yi roo ak yam am yeneen jëmm lay nekk it waaw bu ñu duggee àjjana yeneen jëmm lañuy doon mhm. bu ñu duggee àjjana yeneen jëmm même forme yi day changé ak taay yi ak taay waaw ak poids yi. Mm-hmm. ak âge bi. ak lépp ay changé. foofu sama laaj ndax Seydina Mohamed bi muy dem ca kaw. Mm-hmm. maanaam rañaan ba. ndax jëmmale la Seydina Mohamed waaw ndax rañaan jëmmale rañaane wala wala ci ci xolam la rañaane wala. mu arrêté xoolee wala maanaam historien yeeg yi coow nañu coow lu bare bare bare bari. Mm-hmm. ñu dem ba naan roo xam a demoon ñi ne gént la ko yàlla dëggal. ñi ne jëmmam la demee. bu ñu seetantalee daanu ci am ay notion bi nga xamee ne ñëw na te wax leen dem naa baytul muqaddas Jérusalem al baytul muqaddas wala baytul maqdis Jérusalem ci guddi gi ñëw ba ñu am ñu gëmoon sax weddi yonent bi jox ay firnde firnde yooyu mu joxe wane na ni jëmmam moo demoon demoon ba ci kaw ba Qudus ba àggaguñu ci miraaj dafa am lisra al isra ak al miraaj miraaj mooy yéeg gi jëm kaw mais isra yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti jàkk yooyu jaar na ci dem si Jérusalem mm-hmm. soog a jóg mm-hmm. jiite fa yonent yi soog a jóg mm-hmm. léegi xam nga firnde yi mu joxe woon ci yoon wi ñoo xam ne dañoo tëddoon ci taatu garab di nelaw muur seen ndox mu ñëw muri ko naan ko di naan waaw naan dañuy naan bi yow fekk nañ ndox mi jeex. naan dañuy mën a naan waaw. waaw ñi seen gëneeb réer ñu di ko wut ñu tegtal leen ko. nee mhm. mu ngi ci béréb sàngam buum bi dafa laxasu ci garab sàngam bu ngeen mënee gis ko. Mhm. loolu. ñeneen bis sàngam gannaawaati suba. Mhm. gannaaw suba jëgg jooju meramboon naan seen ndox daañu jaar fii gëleen ga jiitu gëleen gu doomu tàll la saako boo xam ne dafa am ay rëdd yu yaatu yu yu yu xaw yu loolu wax ñu ko ànd moom. demul baytul muqaddas demul demul mm. Quds. ñoom it gis loolu tamit. mais bi ñu toogee ba waxtu jot bi mu leen waxtu wi jant bi fenk. dem ñëpp dem ngir bëgg koo fen la. waaw gëlëm yi ne tëll gëlëm na mu ko décrire woon gëlëm googu moo jiitu la mu la mu sëfoon noonu bañ ko bañ ko laajee ñu ne waaw ñun kay. muure nañu suñu ndox ci taatu garab gi di nelaw bu ñu fekk ñu naan ko mais itam bi ñu leen laajee ñu ne kay suñu gënoon ñu benn waaye na ko tegtal ba mu demee foofa lañ ko fekk. c'est clair c'est clair est-ce que maa ngi considéré ji. dem na ba auteur yoo xam ne. waaw jëmm di am. après la ñu ba nekk jëmm. Mhm. Ah. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ne laylatul mi'raj dafa amee ñetti melo. Mhm. yu mu revêtir. Mhm. melaw doomu aadama. bi xam ne Sidna Jibril mi ngi koy yee ci nelaw. pour mu war ci alburaq. melaw malaayika. bi mu dee traversé asamaan yi. maanaam ñenn ñu ne à partir de. du quatrième siècle ñu ne ndax am na fu muy nettalee ci hadis ànd naa Jibril di dem ba ñam ci lu mel ne garab. ñu gis lu mel ne ñaari tàgg ma toog ci tàgg mi Seydina Jibril toog ci tàgg mi. raf-rafu la'la naa wut suñu Seydina Jibril tiit ba xam man rafuma sax mu ne booba laa xam ne Jibril moo ma gën a xam béréb bi moo ma gën a xam ñii fi xew. dana baba moom première fois mu dem foofu mhm. mu ndax jibril dafa xam li ñëw te man xamoo ko mu tiit man tiituma mhm. bon léegi mhm. euh, doomu aadama yi dañuy jàpp masala question boo xam question voile la xijaab ak distance Sina Abubakar bi ñu ko waxee ne ko waa sa xarit bi sa waa ji sa yanant bi. Mhm. na dem na fi xut si dellu si dem na asamaan. Mhm. mu ne da ngeen ko waxal li mu waxul bu leen fen mu ne ma nga ne sa jàkka di wax. ba Sina Abubakar ko mu ne ko waaw mu ne ko waaw gëm nga li wax mu ma Jibril di jógee gannaaw ci si su Sidratul taxa ak si ci xefeen ba jox ko ay ay alxuraan wàcce ko demaat ma gëm ko du ma mën a gëm. gëm <laughs> na fi kii waaw. gis li ma xam ne masalatul maanaam masalam kiiraay kiiraay lay kiiraay la lu ñuy voile bu ñuy def voile ko mhm. ne mu nekk distance yonent bi sax bi benn juif bi mhm. mu bëgg ko kole aaya mu ngi leen di xaroo àjjana joo xam ne mhm. mu ngi yaatoo ne asamaan yépp ak suuf si ñu ne ko kon bu safara di nekk mu ne xay <laughs> waaw bu guddee ana fu bëccëg di nekk bu guddee am na fu bëccëg bi nekk. daf lay wan ne suñu borom kattanam diggante bii rek mën na cee dugal asamaan ak suuf. ak àjjana ak safara. ak li ci diggante bi. Abdul Aziz Ibn Mas'ud mooy Seydi Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu ci uh, kii Maroc. Maroc. Mhm. am na jamono yoo xam ne nee na diwaan ba nga xam ne ci la awliya yi di daje ci sama dënd bii la nekk. Mhm. c'est-à-dire maanaam daal fokk nga gëm dëgg-dëgg li may wax ne gëm day wàññiku ci mujj jamono day wàññiku ba nit ñi yu bari dañ koy sujet raison mm-hmm. te li ñu xam ci àdduna àdduna rek la am mm-hmm. mm-hmm. c'est le monde des bu la nit ne dugg naa ci ne bi ubbi na bunt bi jaaruma ci miir bi da nga naan fan la léegi su ñu doon xamal ne daañu dem ci science dana dem ba découvrir découvrir yu bari ba gis kawteef yooyu la mais yépp ñi nga xam ne bërëm ngëm lañ dañ ko daal di delloo ci yàlla ñi nga xam ne duñu bërëm ngëm it daañu koo gëm daañu dana leen biir na dëgg la kañ sukuraat buñ tolloo ci sukuraat daañu gis loolu lépp muy dëgg ñu xam ni mu demee woon. Hmm, nu ñu koy gisee. yëpp dañ leen koy wan. ci sukuraat waaw. waaw ah, mos naa jox sa benn livre ñu ne effectivement booy bëgg a gën a àdduna. Mm-hmm. image yi day ñëwaat ngay gis. waaw day jira fi nga jaaroon fépp sa jëf yu baax sa jëf yu bon sa jëf yu baax ngay njëkk a gis teg sa jëf yu bon mais gannaaw loolu itam secret àdduna bi yëpp da ngay toll foo xam ne lépp da ngay jàll moom ci sukuraat waaw est-ce que léegi suñu borom tabaraka taala boo xamee ne xam na ne secret yu bari yi mu nëbb dana ko wan nit ñi ba mu biir nga xam ne koo xam ne dangaa def ilhaad maanaam dangaa nekk ate nihiliste. gëmuloo dara itam. matérialiste yooyu it da nga dem ba xam ci lu wóor bala bala ngay dee waaw. Mhm. fa ngay toll nag ba xam ne nag li nga nekkoon lépp musiba naaru laay la. Mhm. du jëriñu ci dara. Mhm. sanurihimu ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. dafa am sens yu bare bare bare bare nekk ci biir. yëpp nekk ci biir li ñu wax ne la alquran. lu doy waar la lu kéemaan la. lu rëy ci moom. na la dama bëggoon dafa benn benn digression mhm. ndax ñu bari dañu waraan miracle yeeg yooyu daan am wala waaye jeex na est ce que léegi yow ndax yow leader bu ñu bu ñu ràññee nga ci domaine religieux boobu mhm. ndax ci jamono suñu jamono yi mhm. wala passé récent bi am na ay miracle yu am mën a daal suñu réew mi wala feneen yow yow yow fekk wala yow teew suñu defee différence entre euh, miracle et charisme ndax dañu mojisa mooy miracle pour les prophètes karaama mooy pour les saints. karaama waaw karaama moom la wàllu yi def. Mm-hmm. miracle bu yonante amatul dootu amati. miracle bu yonante amatul. waaw maanaam daal ay wax ci. waaye nag xar baax wax ci weer bi yooyu baax nag mm-hmm. moom mooy des. tant ay awliya yi ñu am xar baax di am. Mm-hmm. léegi nag dafa am adduna nu mu doxee noo xam ne. pour seetee ne l'islam mu nga commencé Arabie Saoudite. boo seetee li tax daanaka l'islam jullit ñi li ci ëpp ñu nekk bokk ci tiers monde mu jaare ni mu jaare fi fi fi propagation mhm. bu l'islam bi mhm. ni mu jaaree ba nit ñuy dugg ci l'islam mhm. xam nga boo jógee Arabie Saoudite xam nga Égypte bu ñu woon niil dex boobu désert la foofu yëpp désert la gis nga même Afrique du Nord dalee Libye ba Afrique du Nord yooyu xam nga désert bi moo la moo ko longé. dëgg la bu bëgg ñëw dégg nga léegi jullit ñi ñu ngi tàmbalee foofu. Mm-hmm. xam nga euh, boo seetee réew yi ci nekkul ci désert bi ñu nekk ci kii bi nañ ko dotee. ci faro yi dëkk yi am ndox yeeg yooyu. waaw dëkk yi nga xam ne arab yi abuñu fa woon pour propager l'islam. l'islam mm-hmm. léegi l'islam ji. maanaam wilaay yi ñu nekk wàllu mënul jiitu ñëwub lislaam gi. Mm-hmm. mais buñ ko seetee. Mm-hmm. saint yi nga xam ne ñun ñu reconnaître nañu ay saint yu mag lañu. Mm-hmm. toujours l'islam bi day dugg ci réew mi. ba nga xam ne taxaw na bu dëgër. ba nit ñi seen ngëm dugg ba ñu commencé jàng. saint yi di feeñ. boo ko seetee ñu mu doxee ba muy àgg si lislaam. ba muy si Sénégal. nga gis saint yi fi feeñ. te ki ñu mel ne yeneen saint dootu amati feneen. mais buñ ko seetee nag. pour wan la ne seey mën nañu am. ci benn gox bi nga dëkk yow. wala amu ci nga yaakaar dafa amatul fekk mu ngay am feneen. mu ngay am feneen waaw. Mhm. fekk mu ngay am feneen. Mhm. waaye fépp fu lislaam ma sa jaar rek am na ay saint am na ay saint waaw mhm. boo seetoon téere bii jaay ma karaamaati doolu yaay bu Cheikh Yusuf Nabhani dana la expliqué lu bari wala ci karaama yi ay karaama yu ay saint def ay saint ba ci yu mujj mujj mujj الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي تقربان waaw jabar moom lu ko lu moom jabar lu ko doyal. jabar dafa am ay secret yoo xam ne ci seytaane dañu ne suñu borom dafa bind ay mbindeef ubbi leen ci leer bind ay mbindeef ubbi leen ci lëndëm. fatha. al fatha. Mhm. mooy ubbite. ubbite. ubbi nit ki ci leer. Mhm. mooy ki ubbi ci ngëm ak lépp lu jëm ci yàlla. Mhm. ki ñu ubbil ci lëndëm mooy xam sakkar yépp yoo xam ne day détourné nit ki ci yàlla day dox digganteem ak yàlla bon loolu mu ngi tàmbalee ci xam li ne day ñëw ñëwagul xam ngi moom dañ ne yàlla rek ko jago alxay bi mu ànd ak al mooy lépp luy kumpa kenn xamu ko lu dul yàlla waaye yenn secret dana am maanaam secret ci nit ki mooy li mu xamagul li mu xamagul léegi service météorologique bu ñëwee bu subaa mu taw ay tegtal rek ci la ñuy ko bu ci suba saa mu taw. mu taw lu ñu mën a wax. Mhm. maanaam xamoon nañ ko ci ay tegtal. Mhm. waaye bu neexoon yàlla mu wëlbati ko. Mhm. kon loolu mooy xam-xam boo xam ne mu ngi aju ba tey ci bu soobee yàlla mu def ko bu ko soobul du ko def. kooku du ilmul xay bi dëgg. si ne adduna daana xam lu ñëwagul. waaye du ko bëgg a wax ndax suñu borom mën na ko wëlbati. waaw ndax toujours day. ko kàttanu suñu borom gi. ak maanaam pexem yi ak plan yi yi mu tëral te xamuñu loola lii rek nga xam te xamuñu lii lii dañ la wala déet ndax buñ ko bindee ci àlluwa te bu la wax mahfuz rek suñu borom mën na ko far te juróom-ñaari asamaan yëpp dañ ne bu ci ne àlluwa nga ca waaye bu ci ne luñ ci bind wéyu la far mën nañ koo far ba mu des la ko mahfuz rek di ñu wax ci différence entre méditation. waaw ak zikr. xam nga nekkoon. ok mhm. zikr nee mhm. ki nga xam ne mooy ki bëgg a ci yàlla. Mhm. xam nga ñuy àjjana. ju kawe ak yool bu bari. ak mucc mooy seen problème moom la ñu bëgg moom la ñuy wut ñuy àgg ci yàlla rek lañ bëgg. faale wuñ àjjana faale wuñ safara kooku mooy ñu jege yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg. ma la doon wax sànq naan. bu ko safaroo ci alaaxir bu ko gisoon tiit ba fay ngir force imaanam ngëmam ak ki nga xam ne loolu yëpp dama ko wax a wax a wax ak ki nga xam ne nee na mooy yàlla te dem àjjana bañ a mooy yàlla te dem safara ko ku ah. bànneex bi nga xam ne moom laa am ci yàlla bu duggoon safara du yëg métti du yëg tàngaay yi te safara dana fay ko def fu mu baamte ko moom Sëriñ Abdoulaye Tustari mhm. dafa ne mhm. mooy yàlla te yóbbu ma àjjana bañ a mooy mukk yàlla te yóbbu ma safaraama ko gënal xalaatal ci loolu ba pare da loolu saye leer na waaw mooy yàlla te dem àjjana te dem àjjana waaw waaw bañ mooy yàlla mukk te dem safaraama ko gënal <laughs> est-ce que naa loolu dafa doy ko doy waar waaye li ko li la ko expliqué moo di dama la wax ne yàlla ci boppam dafa fort trop. nit ki day dem ba nga xam ne yàlla dafa koy fees fees léppam. mu xam ne bu yëg boppam yàlla rek lay yëg. kooku bu demee safara it. du yëg sax tàngaay safara ndax safara du ko ñemee daf koy daw. wala mu fay yàlla waaw waaw yàlla la mun safara. waaye moom dafa ànd ak yërmande yàlla ju ëpp doole loolu. waaye gannaaw bérébu kii loram yàlla la. moom. yërmande yàlla ji mu àndal moo ëpp doole loolu moo ko gënal moom mooy li mu bëggee woon yàlla di ko mooy na dem ba noppi di ko mooy naqar lay doon ak gàcce ak ruus boo xam ne bu demee ajoon sax du yëg la fa nekk la fa nekk moom soor lay nekk daal ci biir ajoon <laughs> est-ce que est-ce que waaw mhm. ma wax ne la mhm. du ma woon ci jëkkër ba jëkkër waaw kii mën na nit ñi kii ajoon lay wut kii yàlla lay wut mhm. kii wut yàlla moom yoonam ci àjjana yoonam ci safara mhm. ndax jaamu ñetti dagara la am mhm. kii jaamu yàlla ngir ragal safara wala bëgg àjjana mhm. kii jaamu yàlla ngir topp ndigal su safara amuñu woon àjjana amuñu woon te yàlla digle lii dana ko def ndax fonk yàlla ak ki nga xam ne nag màggal suñu borom rek su digleeg su diglewul lépp ne màggal suñu borom rek moo tax di jëf subhanallah xam nga ñetti yooyu ñetti dagara ñu supplanté la ñu ëppante bon léegi nag ki nga xam ne léegi day sikkar ngir mucc am xéewal gu yaatu ak nag alaaxira dee bu woyof dugg àjjana ko de baax na moom al iznul am ndigal lu général li suñu borom digle wakurullaha xiyaama waquulan kooku tur bi mu fab rek di ko sikkar te yàlla tax mu matal sarti mooy ànd ak laab weet li ci gën a bari jublu penku ba noppi teewlu dana la li si gën a bari li si gën a bari muy jublu penku mën na bañ a jublu waaye mu jublu penku mooy yokk ndax gis nga buñ ne laa léegi bépp tuddee yàlla wala nga sarxe sa bàmmeel dana yàqaliku mën lu toll ne bu doon bën boo ko faralee def rek dana mujj ba buñ ne lee boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan dana leer yokk ci leeral lu dana mujj boo ko waxee benn yoon day yokk lu toll ne jant bi. wala lu gën a leer lamp bi. loolu pour boo demee parce que. ñett xam nga dama doon wax dama junjoon lu ma àggal affaire yi dafa bari mm-hmm. rapport yaram ak roo. Ah, dana changé juróomi yoon. ci mm-hmm. dundu nit ki. Mm-hmm. nit ki bi mu nekkee ci biiru yaayam. roo ak yaram am na rapport waaye rapport ba feebal na ba nga xam ne ki ci biiru yaayam du yëg li xew ci àdduna bi dara du yëg xiif xamul mar xamul dara. bi mu juddoo rapport bi dafay gën a renforcer milieu bi di ko wër lépp lu mu dégg lu dox mu gis xam lépp di xam na wala mar na wala war def nii suy nelaw mu dellu changé ci dootu yëgati ci lu ko wër dara waaye quand même mu ngi dund mu ngi noyyi te boo ko dóoree mu jóg yeewu bu faatoo beneen léegi nag rapport bi nu mu day changé changement boo xam bu gën a doy waar euh, détails yi pour xam naa temps bi du ko mat mhm. euh, bu ñu dekkee itam beneen rapport lay amati boo xam ne léegi au lieu yaram di euh, charloyer ro di yóbbaale ro mooy yóbbaale yaram ba mel ne daf koo seeyal ba mel ne euh, ro rek a fa nekk moom loolu ngay mën a déggee ne àjjana boo fa demee wala sax doo dee mukk mm-hmm. ndax ro nga ro waaw nga mm-hmm. ro nga bon euh, noonu ci zikr mm-hmm. ki ki xam ne wax naa la dafa bëgg ki xam ne day sikkar rek ngir yool bu rëy teraa nga yowmal xiyaam wat ni ko mucc ci tiisu bàmmeel dem àjjana mu fa benn tur yàlla rek. rasulullah mhm. bi sàkkal dog bu gudd dog boo xam bu doy. te ni ko maye rek. Mhm. di ko teewlu comme ni ma waxee bu jublu penku bu ko mënee ànd ak njàpp. Mhm. Eh, eh, ci la barke bi gën a gaaw ki nga xam dafa bëgg a ci yàlla. ku sikkar. ba jot kii bi am ndigal li. moo koy jox jox ko lim. jox ko waxtu koy def. daf koy surveiller ni médecin bi di surveiller malade bi. bu ko nee yokkal mu yokk bu ko nee wàññi mu wàññ mhm. bu ñu seetlu ko jaaxal ñu wax ko ko mu ne ko defal nangam wala mu expliqué ko bu ko war ma expliqué daf naa ko defal nangam rek du ko expliqué ñun war a expliqué mu ko ko mhm. ay lay jaar étape lay jaar waaw ay étape lay jaar mhm. ba set wëcc wëcc wëcc wëcc amatul benn jikkoo bu sori ak ŋàññ te bëgg na yàlla bëgg koo xam ne amatul ci àdduna lu koy kileel lu mu dana kooku nag mooy ki jëm ci yàlla boobaa nag ay martaba ñu am xarifoon siddiqoon yi buñ seetee sax ñoom ni ñu hiérarchisé ñu fa demee koy xam ñu fa demul duñ ko xam diggante nuqabaaw yi nujabaaw yi awtaat yi abdaal yi al wakil al imamaani ba ci xutbul xaws ba ci afraadul alami ila axiri léegi nag xam naa ne dañu war a conclure suñu suñu émission bi mi nga xam ne ñu bëgg a yàgg kon ñu ngi woon ci donc message coranique malgré les digressions c'est enrichissant léegi ba doon conclure émission bi mel nii ci le message coranique loo conclure mu dem conclure mu dem conclure lu tax gannaaw alxuraan mooy kii te alxuraan di ko tax a jóg mooy nit ki texe àdduna texe àllaaxira àdduna ci boppam alxuraan dafa ñëw ni muy defari nit la war a defari itam àdduna jóge pour defar àdduna ndax bu ko defee nit ki ma lay ma waxoon xam ne alxuraan day former jullit bi en général kon former na àttekat bi former na jàngalekat bi formé na soldat bi formé na ministre bi formé président bi formé na tam parents yi formé na itam xale ci mag formation boo xam ne doo tooñ mukk da wattandiku tooñ ndax xàq yi ngay wattandiku ëllëg mu ne ñoo jëf ju nekk am na conséquence lan loo xam ne boo ko jëfee nit dana ca loroo nee na nga rewalte tey woo nit ñi ci rewalte bi. Mhm. ñu fab gànnaay yi ku ca dee yaa ko gàddu. naka noonu nga jàngal nit ñi lëndëm loo xam ne du dëgg ñu fas ko. Mhm. lor yooyu yëpp. ndax innamal mu'minuuna llaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa alaa rabbihim loolu la alquran indi pour nit ñi meloo la noonu ñun nga xam ne ñoom dong ñu gëm. Mhm. mooy ñi nga xam ne waxtu mu ñu tuddee suñu borom rek. seen xol yi dal di euh, tiit ragal lu tax réyaay sun borom ak màggaayam ak li mu sant te matal ko jafe lool te xam ne lu ci mujj ak li mu tooñ ak ni mu ko tëlee joxe xàqam ndax fooraayam boobu mu foor ak réyaayam gi ak moom gi mu moom te ak suñu sàggante gi di fàtte di tayel di nelaw nelaw yu ëpp di lekk lu ëpp di tooñ di lekk lu néewul yëpp buñ ko fàttalikoo. Mhm. buñ tuddee yàlla daanu tiit. Mhm. ndax daanu daje moom mu leer ñoom daañu daje moom kenn ku nekk mhm. dara dox seen diggante kiiraay benn kiiraay du dox sa diggante ak moom. te li nga def lépp amul dara lu ci luñ ci bindul lépp da ko gisi lu mu doon ba ci bën bën pusa da nga ko gisi te sa moromu doomu aadama moo amee lu toll ni bën bën pusa doo jee gis laa tëj fayuloo ko ko. dégg nga ki nga xas. ki nga saaga. ki nga jëw. ki nga lekk alalam ci lu dul noonu. yëpp. léegi gannaaw waxtu nit ki bu ñu tuddee suñ borom rek ndax ngëmam màggaayu yàlla day daal di teew ci xolam mu tiit xam ne mënul dawaaram am na dawaar yoo xam ne war na ci loosam te moom mënu ko lu leer mën a yàlla rek ko mën a waaye nag li ko war mooy na def li mën lépp bu ci dara desee rek mu ngi ci xatar wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu bu ñu jàngee alxuraan mu dolli leen gëm ndax ni ko waxee woon bàyyi na lu ñu ndax li muy cadre bu ex mm. l'exécutif dikk ak mm. euh, xataayu mm. kii bi. moo tax yu ci bari yu ma mënoon wax yu ma bëggoon wax. ma ko mën danaa am bu ko nit bu fekkente ne defaru na. mel na ni waaye man aaya alquran ji mu dégg rek dellu réew mi nga xam ne si euh, Sidna Ousmane dégg na ko jàng alquran mu daanu fi Sidna Omar noonu daanu xam. Mm-hmm. buñ ko dee jàng ki nga xam ne xam na ko dëgg yaramam day tiit am na lu ma waroon wax sax ci si tudd waaye mm, tëb naa ko su boo bàyyi ko. ci mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran di wax ak moom. Mhm. Eh, ak yi rajo yëpp ak studio yëpp. Mhm. Eh, xaju fi. dañ ko weesu. waaye nit ki na de na fàttaliku dee na koy def ci kanamam pour mu bañ a tooñ. bu tax diggante mag nag liggéey dafa war a jëf. ndax jëf ci ngëm la bokk. ndax dañ ñu ko sant wa qul i'malu fa sayara llaahu amalakum wa rasuluhu i'mal li dunyaa kaanaka laa tamuutu abadan wa amal li aaxirati kaanaka tamuutu gadan booy jëf ci jëfi àdduna bi da mel ne ku dul dee mukk lu ko waral maanaam jëfaloo sa bopp rek da ngay ak képp ku si jëriñu def naa ko ngir yàlla booy jëmbatee garab gi jëmbat garab gi ba muy ñor mën na la fee bañ fekk waaye ñu nekk ci meññeet mi muy nit muy mala muy picc même bu daanoo ko xam bu matt mi wala li ci euh, kii picc yi ci nëbboo li ñuy toog ci kër yeeg lépp ay kii la yoo xam ne yaa ngi mel ne sa bopp boo ko doon defal sa bopp da nga mel ne ku dul dee mukk wala ngay xam ne xamuloo kañ lay ràpp da mën a dem ay téeméeri at mooy amal li du yaakaar nekk fekk na nag ko jëfal sa bopp rek da nga koy jëmal rek ngir defal li ñuy wax taam xirati euh, tabax àdduna pour na ma ca pour na ma àllaaxira bu ko defee ñi ñëw ñëpp dañ ciy jëriñu yool ba di la fekki kon daal pour conclusion. Mm-hmm. jullit bi war na fàttali ko dee. Mm-hmm. fu mu toll ndax mooy tax mu ragal def liñ ko tere. Mm-hmm. ragal neenal jamono. neenal jamono mooy perte de temps. di seet ñi muy toogal ak ñi muy waxal bureau bi muy dolli ko mu di fa dem. ak lépp lu koy jëriñ ndax lu baax du doy moo tax ni ko nag lépp lu bon na ko jéem a sori fu mu toll def effort fu mu toll. Eh, na xam na nag yàlla moom mënees la wax fooraayam doy na waar kenn xajul ci àdduna bu ko dee bàyyi xel war ko mënu ko jox xàqam ci màggal waaye bu def lim ci mën lépp wattandiku moroomam yi kon dana wattandiku boromam wattandiku moromam di génnee fi xelam lu waroon waxtaane te jamono bi mayu ko muy tafakkur maanaam muy méditation méditation lu riche la yoo xam ne moom itam ma mat na émission boppam kon daal xanaa tàggoo gi yéen foofu rek Saïd merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi.